الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki julit yi ci bëccëg yi nu nekk kuy waxal yàlla di seetlu dana gis yàqute goo xam ne am na ci réew mi ba nit ñi toppi seeni moroomi nit di leen rendi yàqute gi dem na ba léegi yamatul rekk sax ci mbedd mi fa ngay liggéeyee sax dañ la fay fekk rey la boo toogee sa biir kër ñu fekk la fa rey la boo doxee ci mbedd mi ñu fekkee la fa agressé la rey la waaye nag warul nekk mbetteel waa Sénégal waruñu am mbetteel ci violence bi ñu gis ci dëkk beeg yàqute gi ñàkk yar geeg rey geeg violence bi warul leen a bett lu tax yàlla moo ko wax yàlla moo ne woon wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka borom bi moo ne woon sama téere bi ma wàcc su ngeen ko wonee ginnaaw rek dund dund bu naqari loolu yàlla nu ko waxoon yàlla moo nu woon ne téere bii di alquran su ngeen ko wonee ginnaaw da ngeen dund maïsatan danka maïsatan danka lan lay firi ci olof mooy dund gu karaj lan mooy karaj kenn ci ñun tey ndeysaan bu ko yàlla mayoon poosam diis am lu ci ne mu ñëw ne soxnaam tey damaa bëgg nga defal ma cere yàpp cere ju neex cere ju am diw ndaw si togg cere bi yendoo koo togg depuis fajar ba gee jot ci préparation ba mu yekk ba ñu tegal waa ji lépp muy waaj a lekk doomam bii raam daal di tibb benn dank suuf ne ko sërëx ci cere ji te da ko cee tasaare nag o gis nga séeréer boobu première kuddoom ci biir gémmiñam lan lay yëg première kudd bi ci biir gémmiñam gi lan lay sentir allahu akbar noonu la yàlla wax suñu bàyyee alxuraan noonu la ñuy dundee ci àdduna loolu moo nu dal kon bu mu nu bett ba pare li ci gën a yées gën cee doy waar mooy buur bu tol ne yàlla moom àddunaam samp ko wàcce ay jaamam wàcce yoonam ay mbindeef jóge fële ba fuyee atte yàlla yi soo nee peine de mort nañ ko delloo Sénégal nga dégg ay jullit yu taxaw fay naan non c'est pas l'appel quoi il n'est pas question bu leen ñu tardeel bu leen ñu delloo ginnaaw quoi ah kon def li yàlla wax day delloo nit ñi ginnaaw nan dem ñu seet ku moom àdduna bi boroom kër gi samp këram bi muy rëdd kër gi fekke woo ko bi muy am terrain bi fekke woo bi muy tabax fekke woo ba kër gi xëy na këkk taxaw nga juddoo ko kër gi xamoo kër gi kër gi lu ko këral nga ñëw ne boroom kër googu li ko neex ci kër gi du fi am cooway bari rek loolu moo nu dal suñu digganteeg suñu borom maa ngi jéggalu sama borom ci misaal bi ma ko jox ci borom kër sunu borom weesu na foofu sunu yonente alayhi salaatu wasalaam def ñu mooy tandikuloo xew-xew bi mbir yi di am ci sunu réew yonente daf ko waxoon bu yàgg moom sax daf ko bàyyee daf ko joxe misaal ne bu àdduna di waaj a jeex ne di ngeen gis lu doy waar ci ay reyante rey nit xam nga bu njëkk da nga daan dégg ñu ne jam na ko dóor na ko yat pees nañ foofu léegi looy dégg daf ko rendi ni ñuy rendee xar allahu akbar léegi weesu nañ da koo dóor yat da koo jam paak non léegi lan la da koo dóor bal ci bopp lan la da koo rendi da koo tëral rendi ko léegi loolu la ñuy ndamoo quoi da koo rendi abu hurayra radiyallahu anhu nee na أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكسر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل متفق عليه أبو هريرة ني ينتبه عليه الصلاة والسلام نينا يوم الخيام دجت لدل لول ني حرج دي أم baatu perse la bu yonent wax saxaaba yi dégguñu baat bi moo tax ñu daal di koy laaj ne ko wamal xaraj ya rasulallah waaw loolu mooy lan qaala mu ne leen alqatlu alqatlu mooy rey rey yowmal xiyaam du jot lu dul nit ñi danañ reyante dañ jàpp ay nit di leen rendi di rey comme weñ ni nit ñi di deewee tey moo tax koo waxal ci dëkk bi rek da ngay dégg rey na ko ndax cigarette ñoom de benn beer benn baaru cigarette lañ doon xëccoo waa ji rey ko non moom day juróomi dërëm rek da ko waroon wecci ñuy xëccoo ci juróomi dërëm weccit cent franc la ko jox mu war ko mu war ko delloo vingt cinq ñu koy xëccoo waa ji rey ko non ñoom ci mbedd mi rek lañ daje dañoo wax tuuti rek waa ji génn bal dóor ko non ñii sax ñoom duñ wax loolu dañ koy fekk fa muy liggéeyee ñu yeew ko ba mu dëgër daal di koy rendi lu ko waral mooy dañu ne yàlla li mu indi normalul baaxul ñun nag danañ tëral lu baax li ko njëkk indi mooy ñàkk a maandute indi loi boo xam ne tollalewul nit ñi waaw loi bi tollalewul nit ñi moo tax dañuy rey ñii ñii kenn du leen rey daa leen jox ñaari misaal après nag ku nekk nga dégg ko nu la neex parce que nit ñi dañoo mën a taawil président de la république tey ku ko jàppoon bu ko rey suñu la jàppee nu lay def dañ lay rey Samba Ndiaye bee di jaay fee bitig buñ ko reyee waa ji ki ko rey dañ koy tëj pourquoi ñu kee ñu rey ko kii ñu ne dañ koy tëj xanaa du benn nit du benn sénégalais du benn nit xanaa loi bi yemalewul ñaar ñooñu xalifa général bee tey ku ko defoon attentat ne da nga koy rey ñu jàpp la lu lay def dañ lay rey waajee di jaay fee ay dàll ku ko rey deux mois lan lay tëj génne la waaw xanaa nit ñi duñu benn pourtant yonent loolu la wax de annaas sawaasiya ka asnaanil mus nit ñee yem comme ba ñu peñe inna akramakum inda allah atqaakum ki ci gën mooy ki gën a ragal yàlla yonent waxoon na ko démb ba muy atte maxzumiya ba ndaw sa sàccee bokk ci famille bu riche ñu ne dañoo war a dagg loxo bi parce que islam loolu la wax kenn ci saxaaba yi ku tudd Zayd daal ne déedéet ndaw si yax bi mu bokk famille bi mu bokk kër gi mu bokk sant bi mu am daraja beeg maqaama bi loolu duñ ko seetaan Zeyd ne xam ngeen ne yonent sama xarit la bàyyi leen ma ñëw ñaan ko ne ko demal Zeyd waaxu fekk yonent toog mu ne ko dama la soxla yonent na ko bismillah mu ne ko dégg naa ndaw si dañoo war a dagg loxo bi yonent na ko waaw mu ne ko naka lañ koy defee ndax fi mu bokk yonent bi kanam gi daal di xonq yonent bi yuuxu ne addunaa ngi tukki nit ñaa ngi ñaan njekk ci lu yàlla wax yow Zayd xanaa xamoo Fatima bintu Muhammad bu sàccoon Muhammad dagg loxo bi waaw loolu mooy maandu tey loolu ngeen di wax égalité yi mooy yoon wi buñ ko doxalee tëral ko ne ko ñëpp tolloo waaye bu ñu jàppee ñii wax leen dara xoolal pourtant même ki ñu faat fii ci Pikine nga xam ne lu ñaaw la lu jaadu lu jaaduwul la lu doy waar la lu ñëpp war a naqaru la ki ko rey loi bi ñu ko war a teg ak ñeneen ñi du nekk benn parce que dañ naan kii ci kilifay réew mi la bokk ñañu rey fële ca àll ba ñooñu moom ay ginaar rek lañ réew muy doxee noonu jàmm du fa am beneen bi mooy suñ ne peine de mort dañ ko war a delloosi nga dégg ay nit yoo am dañ naan non non kon nit ñi dañoo war a dañoo nar a rey ñu bari parce que ku rey ñu rey la loolu day tax nit ñu bari ki dee moom déjà dee na kon keneen ki nañu xool waaw moom mi jël rey moom lan la ëppale ki mu rey lan moo tax ñii ñuy défendre ki rey défendre ruñ ki ñu rey ak njabootam ak ay mbokkam lu tax boo waxee ñu ne waa droit de l'homme waaw yéen waa droit de l'homme lu tax ki ñu rey moom lu ngeen wax ci moom waaw ala kooku amul droit ki ñu fekk këram muy nelaw defar këram ba mu baax waxuma la sax fenêtre yi sax daf ko def ay fenêtre weñ giri yi mu def ko weñ buntu yi mu def ko weñ gaa yi tëb fekk ko fa rey ko rendi ko waaw kooku moom lu loi bi wax ci moom wala lu waa droit de l'homme wax ci kooku waaw moo tax l'islam mooy dëgg ba ñu ko bàyyee la ñu torox te wallahi summa wallah summa wallah ba ba ñuy dee bu ñu nanguwul nekk ay jullit doxal li yàlla wax nii rek mooy xew wallahi alazim président bu leen neex am leen loi yu leen neex jël leen su ngeen indiwul li yàlla ak yonent wax nii rek lay mel kenn du kenn du réglé yàlla moo ñu moo ñu bind ala ya'lamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla nee na maa leen bind maa leen xam waaw yàlla mi bind moo xam moo tax mu indi loi mu ne walakum fi lqisaas hayaat yaa ulil albaab laallakum tattaquun gis nga ku rey nit nañ ko rey su ngeen ko defee rek la ngeen dund parce que waa ji dootul aar keneen mais boppam lay aar su ma reyee dañ may rey waaye da ngay rey nit ñu yóbbu la kaso jëlal laay avocat ñu ne tëj nañ ko 10 ans gars yi di la yó di la yóbbul ceeb bu gën a xonq ci ceeb yi ceeb boo xam ne daa wa ko lekk bi nga nekkee seen kër di libre ndax dañ naan pour mu bañ a am problème quoi ba nga nekkee seen kër daa woo lekk fruit léegi dañ lay indil fruit biir kaso waaw di la gâté waaw di la fóotal ay yére ngay entraîné di lekk ceeb yàpp doo fay courant doo fay ndox wala budget boobu nu mu bëree moo tax ci islam kaso amu ci la sujuuna fil islam islam amul kaso islam état la boo xam ne amul kaso li nga def lañ lay def nga ñibbi jeex na waaye xoolal kaso yi budget yim ñu yokkal dem nañ sax ba amatuñu fu ñu denc nit ñi kon xam nañ ne kaso baaxul kaso du defar day yàq ku fa dugg suy génn lu muy wax sama place maa ngi ñëw loolu ngeen dégg dëkk bi booy yi dañuy dugg kaso bu ñuy génn ne sama place kon baaxul moo tax ci lislaam kaso amul soo reyee dañ lay yóbbu rey la da ngaa jam yàlla wax na ko ay yaa ngi ñëw ci kanam alxurru bil xurr wal abdu bil abd wal unsa bil unsa boo reyee gor ñu rey la boo reyee góor ñu rey la boo reyee jaam ñu rey la jeex na boo jamee ñu jam la natt ko ba mu egg ñu xam ne lii la boo pesee ñu pes la nga dem ñibbi waaye xoolal kaso sunu kaso yi mbokk jullit yi kenn ku toog ci yéen tey jublu penk juma waxal ban résultat la jural Sénégal ndax am na njëriñ aha kay lenn da lañ jural mooy budget yu yokk ci courant ci ndox ci lekk ci ay nit yoo xam ne sax dañ leen di jël ñu waroon jëriñ réew mi déedéet yéen toog leen ngeen garde ñii bi ñooñu ñu leen di fay état bi di leen fay yow nga rey nit ba pare encore nga def lu bon def criminalité ñuy fay ki la garde xoolal loolu da leen ne maan ñàkk a maanute ñàkk a doxal li yàlla wax mbokki julit yi sunu yonent alayhi salaatu wasalaam nee na rayante dana bëri ya hadisu abu hurayra hadis boobu muttafaqun alayhi la beneen mu ne laa taqumu saa hatta tazharu lfitan wa yaksuru lkadib wa taqaarubu laswaq wa yataqaarubu zaman wa yaksuru lxaraj qila wama alxaraj qala alqatlu ahmad moo ko solo wa huwa fi saxix sunu yonent nee na yowma alqiyaam du jot lu dul fitna dana bëri ci dëkk bi fenkat yi danañ ne gàññ mu ne marché yi dañuy jegante foo tourné gis nit ñi daaj ay cantine di jaay doo dox deux mètres lu dul marché yi dañuy laalante mu ne wa yataqaarabu zaman jamono bi day jegee waaw day gaaw fi jant bi di sowe ak fu muy fu muy xëye ak fu muy sowe day nekk benn démb ak tey day nekk benn ñii dañ naan waaw lii moom day naaw waxtu wi day naaw ci mandarga axiru zaman la bokk waaye reyante day bëri ñu ne yonent lan mooy alxaraj mu ne alqatlu mu firiwaat ko Huzayfa laaj na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ani saa yonent kañ la yowmal xiyam fa qaala rasul ilmuha inda rabbi allahu akbar yow yonent kañ la yowmal qiyam mu ne ko loolu sunu borom moo ko xam sunu borom moo xam kañ la yowmal qiyam kañ la waaw tey loolu egg nañ ci sénégalais yi boo fi fekkoon benn waay bu kaalawa nga ne ko kañ la yowmal qiyam mu ne la trois mois moo ci des ndax wootewu wootewu yi ñuy wootewu tey waaw di wootewu yoo xam ne dara du ci dëgg parce que teguwul ci alquran ak sunna di woote ay xaybu di woote kumpa loo xam ne dañ ko doon laaj sayduna muhammad mu ne xawma ko tey boo ko laajee fii nit ordinaire yi ñu ne waaw waaw suba nga ñëw ma tontu la foofu lañ toll tey ku ko weddi déglul rajo yi rajo yëpp ak télé yi ñoo am ay gisaanekat koo laaj mu tontu koo laaj mu tontu waaw te yàlla doon alquran laa yaalamu lxayba man fi lsamawati wal ard illa allah wa ma yasuruuna ayaana yubasuun yàlla waxoon ne alquran ci alquran kenn xamul kumpa du ku nekk asamaan du ku nekk suuf jeex na kon feneen foo nekk laa yaalamu lxayba man fi lsamawat ñi nekk asamaan sax xamuñu suba luy xew wa man fi lard ak ñi nekk suuf yàlla mu ne bu la ci buggee sonn sax bul sonn ñii nii xamuñu sax buñ dee kañ lañ leen di dekki kenn xamu ko tey ñun allahu akbar ci réew mi nu nekk ah sa yaram day daw ci lislaam bi ni ñu koy dundee ci ñàkk a wekk yàlla fan yi ku xool facebook bi dugg ci youtube ñëw ci whatsapp yi imo da ngay gis ay forme vidéo yoo xam ne ay nit di yëkkati seeni kilifa di leen tollooleeg Seydina Muhammad wallahi lazim wallahi la maa ngi ay vidéo yoo xam dañ ma koy yónnee ay son benn waaye ne ni alxuraan gënee silabeer noonu la ñun suñu téere yi ñuy jàng gënee alxuraan est ce que dinañ est ce que ab julit dina tëkkale alxuraan ak silabeer dëkk bu ñuy tollale alxuraan ak silabeer foog reyante am fa alxuraan kalaamullah waxu yàlla allah téere boo xam ne dañ ne laa yamassahu illa almutaharuun même boo jàppul amul droit laal téere bi ñu koy tëkkaleeg silabeer silabeer laa wax waa ji naan silabeer ni alxuraan gëne silabeer est-ce que alxuraan dinañ ko tëkkaleeg silabeer lan mooy silabeer waaye foofu la nit ñi war a mun a toll c'est parce que diine ji nit ñi dañoo yaakaar ne toog ba àjjuma la rek nga sol sa dara dem juma la toog ba tabaski rek nga dem jënd saxaar ñëw toog ba korite rek nga woor ñetti fan xiif ba sonn ba weer bi jeex rek nga ñëw nit ñi jàpp na ne loolu mooy diine fekk xamuñu ne diin man xajul xayaa aw dundin la ab julit aw dundin munoo takk jabar waroo tabax kër ah munoo liggéey lu dul nga balaa ngay def loolu yépp da ngaa war a wax lan la lislaam wax ci lii ma bëgg a def ba ñu wax la ba pare nga doog a def pourtant loolu lañ jàng de téere yi gën a tuuti fi nga xam ne boo jeexalee alxuraan nga dem di jàngi diine xam-xam dañ lay wax njëkkeel lax dari pourtant téere boobu lu mu la njëkk a wax ci jullit wala yaxillu lahu an yafala filan hatta yaalam hukma allahi fii amoo droit def dara lu dul balaa ngay def da ngaa xam lu yàlla wax fii dañuy dem rey ba pare def ba pare daan ne lu yàlla wax benn waaye woo na ma téléphone mu ne sama sama sama benn mbokk de dafa ëmbal léegi nag ñu ne dañu ko bëgg a may ndaw si ñu bëgg nag léegi ñu wax ñu nan lañ koy maye ma ne balaa ngeen wax may bi da ngeen war a wax waa ji lu ñu ko war a def ba pare loolu mooy laaj bi waaye léegi dañoo bëgg a wax waa ji daa ëmbal léegi dañoo bëgg bisu bisu tudd bi balaa ñuy tudd ñu seet nu ñuy takkee ma ne léeg yéen balaa ngeen wax ay tudd ak takk da ngeen war a wax ñoom ñaar ñi ba pare lu diina wax ci ñoom ah mais déedéet le médecin après la mort yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله mbokki jullit yi kaayal ñu delluwaat ci sunu diine yaa ayuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafa wala tattabi'u xutwati shaytan innahu lakum aduwun mubin borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla diina ji dugg leen ci lépp bu leen ngarale naka la ab jullit di waxee man de xam naa yàlla lii la wax waaye loolu nag kenn du ko fi def waaw loolu mooy li xew xam nañ ne ku rey nit yàlla moo ne nan la rey waaye loolu daf ñuy delloo ginnaaw quoi bu ko fi kenn def c'est barbare quoi naka la ab jullit bu gëm yàlla di waxee loolu ne yow gëm nga yàlla yàlla wax ci suratu ahzab ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم warul julit bu góor ak julit bu jigéen loolu la yàlla wax nag ay mandarga la indi maa kaana li muminin fekkee li ngay wax yow dëgg la yaa ngi julli yaa ngi woor gëm nga yàlla li ngay wax di ko wootewu na yow jullit nga yàlla nee na maag sama yonent waru ñoo wax nga ciy teg baat leen fàtte waaji ba ko Umar di rey ab jullit la waaye lan la ko Umar reyee danay Umar maag yahud bi dañoo xuloo ñu dem ci Muhammad mu atte ñu mu faral waaji jox ko dëgg mu ne maa tooñ te yonent la waaja dem la ca doy waar mooy waaji mooy jullit kamu xulool du jullit yonent bi ne jullit bi yaa tooñ mu ne yonent li nga wax ànduma ci maa ngi dem ci aboubacar mu dem ne aboubacar dama xuloo kii ma dem yonent atte jox ko dëgg aboubacar ne ko yaa tooñ mu ne yéen ñaar ñëpp doyu leen ma yaa ngi yonent bi xaar ma dem ci omar mu dem ne omar dama xuloo kii dem ci yonent bi mu atte jox ko dëgg ma dem ci aboubacar mu atte jox ko dëgg ñoom ñëpp ma teg fee seen atte ñëw ci yow omar nga ne loo wax mu ne damaa dem ci yonent bi la maata doyuma mu ne xaaral ma ñëw Omar daas jaasi ji ñëw ne teg ko ci ginnaaw ne ko loo wax mu ne yonent bi ma atte doyuma rek Omar dagg bopp bi bopp bi naaw dali fale nit ñi yuuxu Omar rey nga julit mu ne dégguleen lu mu wax de yonent yàlla moo ma atte doyuma ñu ne waaye waroog alxuraan wàcc yàlla di ànd ak Omar fala wa rabbik laa yuminuun hatta yuhakkimuuka fi ma shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima yàlla wax Omar jox Omar dëgg ne jullit yii di wootewu ne gëm nañ suñu jullee bëgguma suñu wooree bëgguma lu lul su Muhammad waxee ñoom ñëpp ñu jébbalu daal di koy nangu hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum ba ñu àttee loola la lënt seen biir ba pare soo àttee ba pare nag summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt du ñu am ñagg-ñagg ci ki waa ji li mu wax metti na ma wala neex na ma déedéet dañuy jébbalu wa yusallimu ñu jébbalu nangu li nga wax ah est ce que ñun waa Sénégal noonu lañ mel fii da nga naan yonent bi nee na ñu ne ah ay daal fii moom mag ñi lii lañ wax mag yooyu ak Seydina Muhammad ku mag mbokk yi dama leen laaj sunu mag yeeg Muhammad ku mag allahu akbar ndax Muhammad am na ku ko mag ci diine ji kan lañu yàlla wax atiullah wa atiu rasul topp leen ma man yàlla topp yonent yàlla yemul foofu sax dafa ne ya ayuha allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illah wa rasul yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi nekk leen ci ginnaaw moo tax yowmal xiyaam nee na maay njëkk a dékki mooy njëkk a dékki yowmal xiyaam kooku buñ koy tëkkale fii ak ay nit ah benn waaye nee na Muhammad benn yoon la gis yàlla te suñu waa ji moo ko dimbali woon ko ko moo jàpp ci loxoom ba ne ko Muhammad a ngi nii yàllaa ngi nii ba ba mu xoolee ba doyal waa ji jël yàlla denc feneen ne ko nag dootoo ko gisati nag dama la doon dimbali rek subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ban adduna la nekk ñun ban réew la nekk ñun ñun ñooy ñan est ce que ñun xam nañ islam est ce que ñun xam nañ kan mooy muhammad la hawla wala quwata illa billah pourtant yàlla xam na ko de yàlla moom xam na kan mooy muhammad waxuma la ñu yàlla laa wax mi ko bind xam na kii mooy kan jàng leen alquran di nga fa fekk yaa yonent yëpp ba mu des muhammad di nga fa fekk yaa isa mooy sàllalu ee yow mus isa di nga fa fekk yaa Muusa yaa Daawud yaa Zakariya yaa Yahya yaa Suleymaan waaye doo fa fekk yaa Muhammad amul ci alxuraan yàlla sàllalul Muhammad fenn yoon bu ko yàlla di woo danaan ko yaa ayyuhan nabi e yow sama ndaw li su ne Muhammad danaan rasulullah su koy wax sax danaan sama jaam tabaraka alladi anzala alfurqana ala abdi subhana alladi asra bi abdi wa annahu lamma qaama abdullah yàlla subhanahu wa taala sax dafa wekk muhammad jàngu leen inna allaha wa malaikatahu inna allaha wa malaikatahu yusalluuna alan yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima moo tax keroog bu mu nekkee ci sukuraat sahaaba yi ne ko waaw boo faatoo nan lan lay sangee nan lan lay jullee nan lan lay suulee mu ne bu ma faatoo sang leen ma ci sama kaw yére yi bu ngeen paree génne leen ma teg leen ma ci buntu bàmmeel bi waxtu ñu ne ko nan lan lay jullee mu ne ki may njëkk a jullee mooy sama borom bu sama borom sëlmalee ci man jibril moo may jullee bu jibril pare mikail moo ciy tegu bu mikail pare asrail moo ciy tegu bu asrafil pare asrafil moo ciy tegu bu paree malakal mawt su paree nag yéen ñëpp ngeen ñëw par groupe groupe par kenn kenn ngeen jullee ma waaw koo xam ne bi mu faatoo yàllaa ko jullee koo xam ne bi nga juddoo moom la ñu noddu say nopp biñ ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah lu ñu wax koo xam ne bi ngay bi julli jotee ñu lay woo nodd julli léegi léegi bilaal bi bu muy nodd turu kan la wax muhammad bu ñu nekkee léegi di julli bu ñu balaa ñuy taaye ñun ñëpp bu ñu waxee ashhadu an laa ilaha illallah lu ñuy wax nga dugg bàmmeel ñu indil la jëmmam ne la kii mooy kan kooku xamoo ko nga koy tëkkale keneen kenn ci ñun bis bu duggee bàmmeel ba ñu ko doon suul di dem muy dégg seen tànk yi xara ani la ni alihim wa innahu la yasma xara ani alihim yonent nee na buñ leen suulee ba ñu leen suuloon di ñibbi yàlla dina leen dekkil ngeen di dégg nit ñi di ñibbi ñu ne su boobaa nag mu ne sama jëmm la ñuy indi won waa ji ne ko kii mooy kan waaw maza kunta taqulu ala hada al abdu muhammada loo doon wax ci muhammad mu ne amal mumin fa yaqulu kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilhaq min indillah fekkee ku gëm yàlla loolu mu ne maa ngi seedee kii moo doon yonent yàlla bi moo doon ndawal yàlla li li mu indi woon yëpp dëgg la ci yàlla la ko jële woon yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله